ay Aïcha ba léegi ñu ngi fii ci kër sëñ euh, Fallou Dieng ak sëñ Moustahim Mbacke di wanal fésal li nga xamante ni moom la li euh, nga xamante ni mooy Wally Seck lu mu def mooy teraanga gu am solo gu nga xam ne doon ko séddale fii ci Touba Mbacke dëgg dëkk suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk Baye Fall doon wane cofeelam ci maam Cheikh Ibra Fall Lamp Fall Babil Mouridina waaye tamit dañu toog ak Fallou Dieng mi nga xamante ni mooy euh, xaritu ci xarit ci Wally Seck ba tax mu indi teraanga gi ci Touba mu ñëw dal ci këram ñu fa yéene waxtaan ak moom laaj ko ba relation la am ak Wally Fall nañ la yàlla na ko yàlla nangu ñoo leen koy delloo baax di sant yàlla di julli ci Moustapha sallallahu taala wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu bu baax nag Serigne Touba ci fekki gim ñu fekkluwaatee bisam bu tedd bii nga xam ne ndigal la suñu ne na ngeen ñu sant yàlla ñoo ngi ciy sant bu baax baax a baax di ñaan yàlla àggale si ak jàmm ci barakatu Cheikhul Khadim waaw. ba teraanga bi yëpp mënu ko si kër gi. ci lu jëm ci wàllu Touba yëpp. waaw waaye day sama xarit Serigne Touba boruñu euh, man sama njureel ci Serigne tuwaa dama ko jaay jënd ko taalibe maanaam Serigne bi ak Serigne Touba rek laa bëgg bëgguma lu dul moom Serigne bi mooy sama diirukaay waaw képp ma jam ci moom rek moom nga ma ma xam ko mu bëgg sëriñ tuwaa di ko ko kennal ci ay waxam ci ak jëfam ak jamono ju nekk muy fësal li nga xam ne moom lay wax muy Baay Faal gi nga xamante ne moom lay dund. loolu nag moo waral suñu relation sama cofeel ci moom chaque jour muy yokk moom itamit chaque jour cofeelam ci man di yokk nga xam ne loolu du dara lu lu lu ànd bu sëriñ bi dogal la muy sama diggante mu nit ku baax nag di ko bëgg sëriñ Tuubaa te nag euh, moom itam mu ñëw ndey ndeysaan sëriñ bi boole ñu rek ñu bokk men benn yenn camp yu ñuy dugale daal muy sëriñ bi waaw moo tax nag màggal bu jotee moom comme ñun amuñu dul bisam bi. te moom itamit amul lu bis suñ bi da ci sonn di ci stressé wu di ci daj lu ne naan bis boo xamante ni fu ma mën a fekk ci àddina ñaan naa yàlla teewe ko xalaatuma cee joué xalaatuma cee dara arrêté na depuis ay yëngoom semaine bële passé ndax yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne Touba ne bisub Serigne Touba daal duñ ko waajal mukk may woote leneen lu bokkut ak moom xalaatuma ko ndax xel yëpp Touba a jëm te fu xol yi bi Serigne Touba wootee xol yi fu mu jëngmal waruñu leen a nga xam ne loolu ba léegi day wane pastéefam wane ak bëggam wane wóolu gu mu wóolu Serigne Touba jukk yooyu yëpp nag su dajee ci moom ma man itam ma jàpp ko te duma ko yemaleeg dara te Serigne Touba rek tax ba tax na chaque année mu ñëw bokk ak ñun bis bi fii sant ñu ñu sant la Serigne Touba yàlla mu nekk mbégte si ñun di ñaan ñu yàgg ko fekk ay at yu bari ci barke Xaadimu Rasuul sant nañ leen nag bu baax a baax a baax a baax jërëjëf. ayca mi ngi noonu Serigne Fallou Dieng lañ la waxtaanal pour mu wax ñu relation la am ak euh, Serigne euh, ak ki nga xamante ni mooy Wally Seck doon wan nañ wan nañ wan wax nañu ba relation la am ak Wally Seck ba tax Wally Seck indi teranga gi yëpp ci Touba séddale ko nga xamante ni mooy dëkk sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu nekk sët sunu Bamba Khadimu Rasul moom Fallou Dieng ak Moustahim Mbacké bokk ci ko waa maam waa kër maam Cheikh Ibra Fall Lamp Fall Baye Mouridina wane seen cofeel ak seen ngëm yëpp ci màggal Touba bi ndax ba ñëwee ci kër gi gis nañ daluwaay gis nañ ñëpp a nañ ay gan macha allah ñu ngi nit ñi